on l'a écouté ensemble. Mm-hmm. ma répété ko tey moom émission bi nañ ko tuddee manque de tact. jaar Sénégal heure bi yaakaar la war a am. Mm-hmm. espoir c'est-à-dire moment bi du moment wu xuloo mer ak xat-xat. Mm-hmm. moment wu joie la war a nekk. nous devons vivre des moments super méga terra joyeux. nous sommes en 2023 men 2023 dañu waxoon ne pétrole gaz day tàmbali et que voilà la done va changer taux de croissance bi dafa yokk les Sénégalais vont voir plus clair mmh. le bout du tunnel enfin mais jàppe tëjee dëkk bi dafa am ordre dafa am loi foog ngeen kii mais du loolu ambiance bi bu leen ko yàq surtout ay élèves élèves étudiants hmm. wala élèves professeurs médecins léegi jàpp élève médecin moo leen dese pourquoi jàpp élève ak médecin ci lan mais les gens ont le droit de dire non mm-hmm. président Sall man dama bëgg audience maa la ko ñaan man damaa bëgg audience te yàlla seede na ni ak alxuraan karim li noo wax fii lañ laa waxaat boo nu ko mayee billaahi wallaahi tallaahi président dañ la kaa ñaan boo nu ko mayee nu jël li noo wax fii nu waxaat la ko ngaa la amul kenn kuy am sa président yéene ko la bon moo jiite réew mi waaye aussi sañ nañu toog daan ne waa président yow du dang naa dang noo yéene lu baax waa est-ce que doo xolaat taxawaay bi est-ce que doo xolaat taxawaay bi tuuti rek c'est-à-dire man damay damay toog yàgg ma ne mais président est-ce que yëg na jàpp yi am ku ma ne woo arrête si est-ce que sax moom organiser wu ko. borom kër gi bañ a xam ne xew ci këram ma ne ko organiser jàppe yi pour lan. Hmm. mu ne ma ah mais bon pour que les gens se pour que les gens euh, ragal moytu ma ne ko lu nit ñi di ragal. xupp xale yi ak xale yan ak kafi xale fii <laughs> kafi xale. day xupp xale yi. ngaa la kafi xale fii. ñun ñooy xale yi paasal askan wi. Hmm? ñun askan wi ñooy xale yi. yàlla nañu yàlla dool sutura amiin yaa rabbi def ci médecin du ñu ñuy bàyyi ci kaso enseignant ak médecin ak élève du ñu ñu ñuy jàpp tëj ay nit yu ñuy déglu lañu médecin da kaa déglu jàngalekat danga nga kaa déglu ab élève da nga kaa déglu moi j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce que vous voulez après am na kenn ku ma dégg mu naan ah mais attention hein, toutes les personnes arrêtées ça et là là ils risquent de ne pas ils risquent de ne pas voter hein, parce que seen dossier bu yàqoo du ñu mën a voter ah. plus de 500 personnes. parce que après affaire bi day nekk bu ñu demee élection on va calculer soi-disant euh, ma ne ko eh, sëñ bi sëñ bi li ngay wax ni même bu dee sax xalaat la nit mën na kaa bàyyi xel. comme ça sénégalais yi bàyyi xel révision constitutionnelle xaw ma euh, électorale bi concerné liste yi euh, buñ ca tolloo gars yi mën a inscrire wu et cetera pour voter mu ne ma bàyyil xel loolu de jàppe bu bëre bii ay dossiers yu yàqu la de mën na ko yàlla ci yàlla musal aujourd'hui et c'est là où monsieur Sonko a raison quand il dit aux gens d'éviter de se faire alpaguer légèrement parce que tu as un poste wala tu as dit un truc et cetera mais le problème au-delà de de cet aspect-là le problème c'est aujourd'hui de dire au pouvoir en place il s'agit pas de jàpp ak gauche à parce que nit ku sonn ngaa la nit ku sonn ci souffrance jàpp du ko téye xam nga lu ko téye waxtaan. malheureusement président Macky Sall dama la koy wax a ah, yàlla sedd na ko dama la koy wax yàlla rek tiim nu dafa bëri ñu la war ñoo xam ne ñoom ñoom pour ñoom ay vatan guerre lañu bu méttee doo leen gis président ay vatan guerre seen làmmiñ rek laa yem bu méttee dañ naan pëkkëj daw président ñooñu tànk yaa ngi leen di déglu dañ lay mettre toujours dans le carcan de la chaleur à la limite de du conquérant mooy ki nga xam ni il n'est jamais satisfait day wut rek di wut rek yow kañ ngaa toog jaamu yàlla kañ ngaa toog savourer xanaa sax yow boo amee dara di nga toog savourer mais da ngay da wut rek da koy wut rek yow kañ ngay ka léegi yow kañ ngay toog ce que j'arrive pas à comprendre jàpp ñëpp j'ai vu docteur ko war a dafa war a wuy ji tey yaa de dire que secret médical du lu noo wax on ne peut pas appeler un médecin di ko laaj way dossier diw lan moo ko dal lu ko kii non aucun médecin au monde ne l'acceptera ou ne doit l'accepter loolu bonne façon loolu est-ce que loolu du loi yéen tamit kilifa yi bàyyi leen naan force reste à la loi ba pare ngeen loolu abusé la c'est de l'abus c'est du zèle parce que force de signature nga yore pour jàpp nit tëj nit ak lan tenue loolu boo ci abusé kenn du la téye parce que dangay am doole mais est-ce que c'est une solution est-ce que option la parce que population bi nii ngay jàpp di jàpp di mais bu yàggee nit ñi xeex. et vous ne pouvez pas dire jàmm ba pare jëmale nit ñi ci loolu bu yàggee sax day mel ni dama naan mais ñii xanaa ñii dañoo bëgg xeex bi xanaa nguuru président Macky dafa bëgg xeex bi te warul bëgg xeex bi xeex bi moom kenn du ci am ndam et le plus gros perdant le pouvoir. moo xam mu yéex moo xam mu gaaw kenn du si am ndam aujourd'hui il y une règle qui est là ou des règles qui sont là établies et préétablies on parle de démocratie quand on parle de démocratie aujourd'hui ñiy wax naan wuy euh, légitimation ou du moins limitation de mandat et moo tax Afrique dina yéex a dem nangam nangam au niveau des arabes et cetera ils ont un autre système et mais du benn du benn. beneen bi mooy la démocratisation processus bi fii sommet de la Baule en 1990 ngaa la François Mitterrand dafa wax africain yi président Abdou Diouf ak ña ca des ka si nekk say réalité démocratise ton pays selon tes réalités Sénégal jël ndam li waa Sénégal mun naa jël ndam li foofu ñëw ba 2023 noo bëgg a dellu <coughs> avant avant bool quatre vingt bëgg dellu année quatre-vingt teg ko ci limitation de mandat bi warul am parce que mais c'est c'est injuste règle du jeu yi mënuñu ko teg ba pare ngir ñëwaat ne non non non règle du jeu dañ ko war a changer mais non dañu waxante dëgg après c'est quoi les puissances le Sénégal est un pays d'enjeu et d'envergure le Sénégal est un grand pays ñun ñoo ko xamul waaye nag li muy doon doon grand pays dëkk baatin la te loolu ñu bari dañ kaa yére mbir moo tax Sénégal dix milliards d'ans tubaab du mu mënal dara ci ku ànd ak sunu borom tubaab du mu mënal dara nasaraan du fi mën dara ngaa la 1945 yow Diarra Diop <clears throat> lu amoon guerre mondiale. deuxième guerre mondiale <clears throat> li ma sama rakk bi Jean Claude di wax naan ma mais de guerre mondiale musul am te wax na dëgg tëñoo xam lu ma wax mu ne mais saa guerre mondiale musul am mais dëgg la ngaa la est-ce qu'on a bombardé l'Afrique en 1939 45. non est-ce qu'on a Inde non. est-ce a bombardé Chine non ñan ñoo doon bombardé américain ak européen ak japone du dëgg kon du geer mondiale guerre mondiale mooy ñëppay bokk après ñu ne ñu ah déet guerre mondiale la woon kat parce que africains yi bokk nañ ca guerre ba jël nañ leen yóbbu leen africains dañ leen a jël dugal leen ci lu seen yoon nekkut sanu ay njiit te jamono sàggan sanu ay maam sàggan di nelaw ñu ñëwaat ba fii tey le jeune africain yeewu non tubaab ne ko bul yeewu lii mooy jafe-jafe bi yi xew nii yépp africain bi léegi dafa comprendre ñu ne ko non bul comprendre les réalités sont telles que tubaab yee fi nekk et cetera bul comprendre voilà léegi soxna si loolu la mu doon. kenn xam loolu la mu doon non bul comprendre bàyyil mu sedd ñu ne boo ok def nii. après ma toog CNN sànq à 3h50 du matin je regardais CNN je vois ils étaient en train de traiter le leadership féminin et africain à partir de la région de Thiès CNN 3h50 du matin ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons un potentiel énormissime les Occidentaux passent leur temps à voir et regarder nos richesses. Pendant ce temps, on nous fait comprendre que vous devez être à un autre niveau, d'accepter la chose et de voir les choses se faire par-dessus vos têtes. loolu nan lañ koy tuddee. et avec la complicité des nôtres. ñu bokk ci ñun ñoo xam ne ñooy nekk seen ay complices. Mm-hmm. est-ce que l'Afrique pourra s'en sortir? quand est-ce que l'Afrique pourra se prendre en charge et en main quand si on met aux arrêts le médecin jàpp prison jàpp élève jàpp enseignant on veut faire quoi de notre société on veut avoir quoi on veut avoir un chef d'État qui va avoir des larbins président loolu xanaa bëgguloo ko am ay suq ak ay dunguru yoo xam dañuy top sa ginnaaw rek abadan ila ah parce que nous avons des richesses des richesses qui ne nous profitent pas on veut que ça ñu ne ñu non yàlla non y a les mm-hmm. kon ñun nañ jël dëkk bi li gën a gaaw delloo indépendance bi mais moo gën a yomb bu boobaa euro la ñuy dundee ngaa la bu ñu xëyee kat CFA bi dootuñu ko laal euro la ñuy def suñu poos ku ne di dox di lijjanti. mooy dëgg sax nag tubaab yi yore si suñu santé te tubaab yi ñoo gën a ñoo ñu yor suñu santé yor suñu lépp ñu am jàmm. ginnaaw ñun su suñu indépendance jëriñu dara noonu nañ delloo affaire bi tubaab yi tubaab yi gérer ka mais saway dañu waxante dëgg lii mënut a wéy te kilifa yi nag vous aurez beau nous dire léeg-léeg kilifa ne la il faut que tu penses plus à toi c'est vrai parfois on a envie de penser plus à nous et te damay dëgg la ngaa la ngaa la xam nga tamit benn affaire <laughs> naa la ko wax démb xaw ma démb dama dugg ci benn magasin ki maa waxal mu ne ma waaye dañ leen di setaan de vraiment yéen moom ay jàmbaar ngeen waaw ñun daal ñu ngi fi di leen setaan di leen encourager di leen di di leen ngeen sax leen ci rek sax leen man ne ko sëñ bi déet lu ñuy sax sax si lan. bëgg lu ju jàmm de. non yow nga toog fi nga toog toog dara waaw sax leen ci rek noonu la de sax leen ci man ne ko déet dangay ngay ñëw ñu sax si. mooy dëgg. dañu si sax ñun ñëpp na waaye nag munoo munoo toog fi nga toog yow jàppoo ci dara kuul bu ñëwee da nga naan sax leen ci waaw jàmba nii la de waaw na nii la rek yéen daal yéen daal dañ leen di seetaan yéen jàmbaar bi loolu ñun duñu ay jàmbaar ñu toj ñu fenn on ne fait que parler d'information et librement selon nos assertions propres mais saa mbirëb mbooloo nag doo doo doo ma doo ma jiitul nag naan waaw ñu ngi seen bala ma dee na ngeen baal mu ne kilifa yeeg ñuy seetaan ñu ngi seen gannaaw bu leen nee suñu gannaaw neleen leen suñu wet <laughs> dëgg na de lu leer la wax. ñu ngi seen gannaaw kàddu boobu ñu te bu la dara wokkee wala ñu la. ñu la ci pare nga. jiitul nga dugg ci kàmb gi ñu taxaw naan xel xilil xilil ah, xale yi dañ sot <laughs> yaay dañoo bari wax toj ñu fen di jéem di sax yi laaf xulil eh, ñu koy lii bettuñu dënn ko du def nag <laughs> ngaa la li waa ji waxoon xam nga bàyyi aale bankaan nuyu ay temps Pape Alé il faut ñu éviter ko. Mm-hmm. ay temps xoolal mu dem na ba bëgg a junj lool ne si xoolal affaire bi nag du du du nun kese. Mm-hmm. ka nekk toog fa nga toog naan kii waa kii déedéet fu nguur gi sedd la yaa ca jiitu mm-hmm. <laughs> te ñun du ñu sedd xulil wuy <laughs> ma ñun du ñu sedd yow ngay sedd ba pare naan ne ca rek waaw nii la jàpp leen rek taw <laughs> ngi seet gannaaw ma gannaaw da ñëw ñu ànd kay. kay dañoo ànd wax président Macky ne ko lii la ñu bëgg. wala nga taxaw sama yoon su ma gëstoo gis la. waaw non problème bi mooy dangay ngay doo gis kenn <laughs> yàlla ci yàlla yàlla na yàlla saxal jaamu Sénégal. moo demee si xel na yàlla saxal jaamu Sénégal yàlla na yàlla saxal jaamu Sénégal. ñun moom ñun moom benn affaire fi ne. li ñuy wax nii kanu ñu répété ko. Hmm. président bi laay boo ñu joxee audience dina ñëwaat nii waxaat ko nii ci kattanu suñu borom parce que lu nu gëm la te dëgg la te lu nu dund la aujourd'hui quand on expose les problèmes APR benn Bokk Yaakaar fii ngeen jum fii ngeen jum fii ngeen jum voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut faire voilà ce qu'il faut faire amuñu prétention yi lenn ngeen xool mais le drame de ce partie de ce régime mooy ils sont fermés recroquevillés sur eux-mêmes gendee coincés comme une carapace voilà kenn du leen jege te ku leen jege ñu ñu mais attends jàppe gauche jàppe droite tëj gos tëj droite toj vitre léegi nag toj witre a xew toj vitre jàmbur ñàngal voilà mais sa way nit nit xale ba ndaw boo ko dóoree dóoraat dóoraat dóoraat bu jéngoo sa kaw wax ji jeex mm-hmm. kon bu leen pousser nit ñi à bout am na solo su ko defee ñu daal di euh, jàll ci li nga xamante ni mooy sommaire bi euh, secrétariat euh, national APR le parti du président Sall veut rester fort et se mobilise gis nañ ne nag ni ki ajuma bi ñu génn président Macky Sall doon na amal benn réunion te na ko noonu nag gis nañ ni jamono ji waa APR taxaw nañu temb rek comme nañu koy nañu ko nañu koy gisee ci ci ci vidéo yeeg image yi ngir rek jàppale waat ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ban jàngat nga daal di am ci loolu paasan